nafila 8 guddi juróom-ñetteel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñaari rakan rakan bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon ak qul huwallahu ahad fukki yoon ak ñaar xarafu ci nekk des na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla junni at te dana mel ni it ku leer woddu mandal xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yëpp ak leneen ak leneen mbokk yi ko ci bëgg yeneen ni leeral nga delloo ci Xukuratul Ayni bu Sëriñ Suwaybu bu Mbàkke page 143